Box Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu ziar den bal den balax leen wax ni tey ñu ngi fii ci Kër Massar Kër Massar nag eh, dañ ñëw seetsi fii suñu benn waa joo xam ni eh, jaaroon nañ fii ay at ci ginnaaw defe naa war na ma ñaar ñetti at ñëwoon nag fekkoon ko liggéey bu am solo ñëwaat nag tey xoolal liggéey fu mu toll muy sëñ Moustapha Guèye waaye nag di fàtte ni ci diggante bi eh, am na leneen lu fi xew loo xam ni xew na ci foire yi te dafa naa ni il faut ñu il foog il mu wax wax wax ceeg ñun sëñ Moustapha ñu lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di leen ziare yéen ñëpp. Mhm. Euh, waa Samagal TV yi mm-hmm. ak mbokk internet yeeg ñëpp ñi ñuy mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax macha allah sëñ Moustapha euh, tey ñu ngi fii ci Kër Massar bergerie bi nekk bergerie tudd Bowak hmm? B A B O ah. macha allah tey euh, boobaak léegi Euh, fan nga toll ci liggéey parce que buñ fi ñëwee gisoon nañ liggéey bi ñu gisoon fii ci benn production bu bu doy waar bu jeune ay ñu fekkoon benn box ñëwaat naa nag fekk béykat bi nga nekk ci extension n'est-ce pas noonu da ngay da ngay yokkaat. defaraat rek defaraat ah defaraat waaw parce que ba fi ñëw <laughs> dafa naan suuf la nekkoon la fii. ci suuf lañ nekkoon ci suuf lañ nekkoon. waaw mhm. ah, kon lii lu bees waaw tey fan nga tollu ci liggéey bi. waaw euh, amélioré lañ wax. Mhm. Euh, laa dum ku leen yor. da nga leen di defar. Mhm. fi nga toll ren nga fexe déwén nga avancé. Mhm. yokkaat te di juddul ay champion. Mhm. di ko wane foire yi. ak yépp rek macha allah. macha allah ok booba ak léegi euh, fan la élevage bi parce que yow ci yan sang nga liggéeyee ba si fii yan sang nga nga jot a waaw euh, man pratiquement bi ma duggee ci élevage yàgg na. ndax mën naa wax ni 1998 laa njëkk am sujet. macha allah mais nous woon pas élevage comme ni nous mhm. euh, en 2004. Mhm. la liggéey parce que ci suis yor sous la wax ba ji la en 2004. Mhm. Pendangaan boobu yàlla dogal la euh, croisé de différents yu bari. Euh, muy am ay femelles ba jur àll. Allah gay ñep xam nañ ko. en 2016 mo nekkon vice vice champion mal espoir. Mm-hmm. top ci ginaaw Galaxy en 2016. macha allah. Pendangaan euh, boobu moo ko jur ak Papis. Pendangaan boobu nag fi ñu toll nii sangam moom moo ëpp ci gétt gi. ok parce que ay domam yu nga xam si dama leen croiser won ak yenen mal. ok ak ay sëtu àll. Mm-hmm. setu Pendangaan boobu fi ñu toll nii daanaka ñoo nekk ci gétt gi. ok machallah allah su dul sëtu rek.

Penengaan nag dafa nekk fa bokk ci Mansour bi mm-hmm. Mansour boobu moo jur Tina. ok Tina euh, jur Baba Galle jur euh, Tina jur Lietna. Mm-hmm. Lietna jur direct Penengaan. ok Tina dañ ko boole ak Baba Galle. Uh-huh. kan mooy Baba Galle. Baba Galle doomu Badlin la. ok Badlin kan nañ ko boole mu jur Baba Galle. Mm-hmm. seexam bu mbokal bokkal ak ak mom ben benn ndorom bu ah, jigéen ah. mom lañ jël croiser ko ak Badlin mu jur Baba Galle kon Baba Galle Badlin 100% la ok Badlin bu raxul dara la waaw Badlin bobu Baba Galle boobu ñu teg ko ci Tina Tina nekkon doomu Mansour nekkon famille bu noir mhm. bu rafet mhm. Tina wa ties ñep xam nañ ko mhm. mm, famille bu guddoon fan sax macha allah am wér-gu-yaram am lepp ñu tegoon ko ci Baba Galle mu jur mu jur euh, Lietna bi mu juree liet mhm. ñu jël liet encore tegaat ko ci benen doomu Mansour mhm. ba euh, papa yi liet na yaayu liet na mhm. doomu Mansour la ñu jëlaat liet na ko ci benen doomu Mansour mu jur Penangaan déjà Penangaan da ngay wax ni baaba euh, euh, li Mansour la ak Badlin bu raxul dara ok Mansour la ak Badlin bu mu nekk nak sang bu différent ak waa Dakar li ñu doon ah ok motax bima demee jëli ci sangu Dakar bi ok dugul ko ci sang bobu mu explosé. ok ndax petit ibrahim la a petit ibrahim nekkon doomu doomu Watara. ok lañ bolé ak doomu ibrahim petit ibrahim petit as mhm. famille bari yu trophée. Mhm. ma fekk petit euh ci euh, Moussa Yad, qui est ci ok ma ko ko petit bi mu tëbee Pendangaan mu jur ci ay seex. Uh-huh. yu jigéen bébé Bousso un ak bébé Bousso deux yàlla dogal bébé Bousso moom <coughs> am doom ak biddiw bu faax. Uh-huh. muy watara mooy maal bii nga gis ne. Ah. déjà mooy maal bu mag bi jur famille yi si suuf noonu ngay laaj. Ah, kon watara moo nekk léegi même foofu Pendangaan moom moom da ko juddule wala ba nga koy jot xale la. dama ko juddule dama ko juddule. damaa jënd yaayam. ok. damaa jënd yaayam ci. ci loo bu Tiwaawoon. ok loo bu Tiwaawoon euh, maa ngi koy saluer à passage loo sama référence la ci élevage. macha allah ndax dafa xam sang. Uh-huh. da nga daan fekk kër mu tak lu mat fukki mal te yorul lu mat fukki famel lu doy war ak lu doy war kay. da nga daan fekk kër mu tak fa lu ëpp fukki mal te yorul won lu mat fukki famel wala ñaar fukki famel mais sang yi bu ci nekk da leen doon tey ndax da leen a xamoon sang bu ci nekk. da ko doon tey da ko doon téye maalam ba saa bu ko soxlaa donc mu nekk un référent de l'élevage ni mhm. fi ah, taxaw ni ñëpp du ciow yëpp ci bari mo leen tek ci yoon macha ci ay xaralu lañ dem jël euh, utiliser ko yalla dogal ñu am ci luñ ci am macha parce que amine Ndiaye bi nga xamne si dugg na kër Pa Mansour Mbodj dafa exploit amine Ndiaye mom sans Mansour bu te lo mom mom mo yoron Mansour mom déjà lu bari mhm. ci élevage euh, docteur euh, euh, Diallo bu Tiwaawan. Uh-huh. ñooñu jóge bu Thiès ñoom ñëpp xam nañ lu ci ci élevage boobu. macha allah bokkoon na sama référence yi en fait sang bobu nek sang bu raar. Uh-huh. et en plus tamit amaat benen sang bo xamne ne dugg na ci sama sang bo xamne dafa rare mu may ma ma mën a lu yàgg. ma uh-huh. mën liggéey ay mensuration yo xam dafa constant. muy sangu Mamour bi aussi. Mamour bi tamit nekkoon sang boo xam ne. Mm-hmm. tasul ci biir Sénégal. ok pratiquement bokk na ci sama gétt li am Mamour kase bokk nañ li am sama gétt presque wala boo ñi ci am tamit xamatuñ Mamour bi. Mamour boobu mu Moustapha Ndiaye moo ma jëndaloon Moustapha Ndiaye maa ngi koy nuyu en passage Moustapha Ndiaye Thiès. Mm-hmm. ñëpp xamoon nañ ko ci Mamour moo doon borom Mamour. Mm-hmm. moo ma jëndaloon benn doomu Mamour bu jigéen bu ànd ak doomam ak sëtam doomu Mamour boobu ci laa tëblu sëtu membre boobu ci laa tëblu doomu papis laa ko jox mu jur maire bi. ok maire bi ma jox ko àll mu jur maaraay bi ma jox maaraay euh, ñi dëkk maaraay Louga. ok euh, muy maal bu extraordinaire fi ñu gaa yi koy wër ba léegi mënatuñ ko gis. je comprends ba tey it maire boobu ma teg ko ci aada mbaw mu jur l'américaine bi njëkk a def sama kër 106 point 5 ci femelle. l'américaine waaw ma tegaat ko ci volcan mu jur femelle bi nga gis noonu si si si si suuf noonu. waaw weex bi nga xam ne porté la am da ngay wax naan. léegi man dafa na mais voilà xam nga man ba may ba te femelle bi ba mu gagné ni ah ki femelle bi de dama dafa ni benn dafi quoi mais dama ñëw tey gis fi ay ay moromam quoi ñu mel ni ma ni waaw. léegi fan nga liggéey loolu non non. liggéey bu constant liggéey bu. parce que femelle yi macha allah dañu dañu dañu doy waar dañu am dayoo quoi. Ah, liggéey bu. nag en général. Mm-hmm. xar yi ma daan yi ma xar ma daan yar xar yi ma daan yar ah. uh-huh. dañ daan sew gudd parce que benn ngaan ni bu njëkk laadum yi noonu lañ ma ay ah. biche lañu woon ok ñun boo daan yenn yor yor yenn day yooyu sax dañ jàpp ni doo laadum doo laadum bu njëkk loolu moo xewoon waaw ay yeel yu gudd ay wet gu gudd bopp bu rëy bopp bu damm ay kornu yooyu moo am soxlawuñu woon nu woon fano fano uh-huh. soxlawuñu woon ay nopp yu rëy ñu woon dara après nag waa Dakar moom ñoo njëkk a def métissage bi ok Dakar ñoo njëkk a def métissage bi. parce que dafa mel ne am na bari ñu wax ni euh, docteur Diallo bu Thiès moo joxoon abokan benn femelle métissage nangam na mais daal fii la métissage bi ëppee. fii la ëppee yow jamono jox penn nga am ba nga ko yor fan nga ne woon. Oh, Louga laa Ah, fa nga njëkk a yare. yare Louga laa njëkk a yare. ok sama sujet. Mhm. Euh, fa la juddulo sax. champion bi njëkk jël champion dam euh àll vice champion euh, Mal sport Louga la juddou. boobu yaa ko yoroon. maa ko maa ko juddulu maa ko indi Saaladam. muy espoir mal espoir mal. ok man maa njëkk a. kon yàgg nga ak trophée de avec Penda moom lay doon moom la njëkk a natt ci Saaladam hauteur euh, un hauteur euh, cent. ci femelle. yaa ko indiwoon tam yaa ko indiwoon waaw. yàgg nga yàgg nga yàgg. c'était en 2011. ok macha allah 2011 la donc liggéey boobu dafa yàgg. dafa yàgg te Penda Ngane boobu ay sëtam ba léegi ñoo fi nekk. ay sëtëm mensuration yàgg na fi surtout auteur bi yàgg na. léegi léegi kañ kañ kañ la doole bi dugg si. doole bi moom man maa ko cherché ci envers volcan. ok volcan nekk mal bu extraordinaire. abukan joxoon ma ko pas abukan sax. du mhm. ma wax abukan moom ma ko jox parce que fekk ma fa abukan kii moom ko jox euh, booy booy séeréer. Mhm. bu abukan mooy aadama. Mhm. moom lañ ko mayoon. mu jaay ma ko donc euh, euh, bi ma koy jënd. xar bi dafa handicapé parce que dafa am tànk yi dafa dafa gamboon ba ci suuf. ok mais man génétiquement laa jënd. waaw doom yi nga soxla waaw man. soxla woon moom ci yee éleveurs yi. waaw kiy jënd mal pour un mal parfait ak kuy jënd génétique bokkuñu. bokkuñu yow da ngaa soxla ay mbate. waaw wala nga soxla looy changer sa gétt. waaw même boo ko gisee bu amee handicap. waaw utiliser ko pour loolu changer wu. gis naa ko ci faatu tubaab bi rek benn waay bu def noonu dañuy dem dañuy jënd cibler mensuration. waaw ah. te possible cibler mensuration te amoo ci mensuration perte parce que yow li nga ciblé ah. probablement la na mais génétique. Mhm. ñi ciblé mensuration ni dañuy ne ñu jënd est-ce que dina jur lu ne mais la génétique xar parce mhm. que volcan grand ran mhm. Dibor Bachir jur Dibor Seynabou mu ëpp woon kër Aboukane ci ci rëy. Mhm. moo jur Seynabou. Mhm. moo jur Dibor ak ak Bachir. Mhm. ñëpp xam Bachir ci yàq. Bachir di doomu jibi boo ko booy séeré benn baat. ñu jël ko boole ko Seynabou Seynabou di doomu Algor. ñëpp xam ko ci dayoo ak ak góor gi bi. jël ko boole ko Seynabou Seynabou doomu Algor. Algor tamit ñëpp xam nañ ko ci Birahim bi ak doole ji. macha mu jur Dibor Dibor nekkoon femelle bo nga xam si dafa rëy. fa balèze ñu jël ko teg ko ci Grand Rane foofu amul lu du rëy. ay mbokk yu rëy rek lañ am. Mhm. génétiquement kooku du la rater rëy. Mhm. lu mu la mën a dool tam dala koy dool mais du la rater rëy te man sama xarit dañu sewoon. waaw. mal bi mënoon dugg mën nga yokk enserrage mën nga def enserrage mais pour nga def rëy dafay jafe. Eh, ma dugal ma dugal volcan nag fas yéene ci téye base de femelle ñu bari comprendre ñu loolu dama dugal volcan bi mu dougalé volcan ba nopi biddiw faax doo koy ñëw parce que volcan mo jitt biddiw faax ci kër gi. ok biddiw faax biddiw faax moom par circonstance la ci joté circonstance moy coup de foudre coup de foudre man dama ko fekk ci foire rek. xol ko rek né mal bi kan la manam génétiquement mu am luma sentir ci mom parce que ñun niñ ñu jàngee xar bokkut ak ba léegi niñ ñu jàngee xar uh-huh. ñun xar mën nañ ko jënd sax ci dara. waaw parce que xamuñu woon papa yi diw doomu diw doomu diw ñun xamuñu woon loolu ñun da dikk rek xool xar bi. xam ne mën na laa dafa dara xam ne kii mën na la indil apport. macha allah ñun loolu lañu jàngi xar te noonu lañu jàngalee xar da ngay dikk xam xool xar bi rek daanaka kii boo xoolee xam ne bokk naag xar diw. bokk naag sang diw bokk na sang diw bokk na sang diw noonu lañu daan jàngale oh. xar donc Bidew Fakh dama ko gis rek mu séduire ma ci biir foire bi laa ko waxaale ko ci biir foire bi génnee ko ci foire bi. Hein? yóbbu ko. transféré ko ci biir foire bi nekkul taxaw fa yóbbu ko bi fekke ma première édition fekke ma fii. bu Kër en 2018. ok ba di fekk xar bi stressé seug mais gis naa ci mom ay critères mal yo xam ci si xar bi da jural ay ngandi femelle ay femelle yu kudd yu nga xam mën na la defal exploit ta du la rateel lenn. ok mani malheureusement jëndoon na mal ba noppi mais du ma parce que ñom ñaar. ñoo bokk. Mhm. ci ay maam mais bokkuñu bind bokkuñu lu ci def. ok ñoom ñaar mën nañoo liggéeyante sax seen biir. Mhm. ma jënd bi dew fàq yóbbu ko ma yóbbu ko du directement mu dugg foire yàlla dimbali suturaal ma ci mu gagné foire boobu. ah bon dafa jógee fekke ma dem. dafa fekkee ma dem Louga foire Louga. gajo directement mu dugal ko rek. vidéo faax dafa naa turam wala yaa ko joxaat. man maa ko ah, da nga ko jël rek tuddee ko vidéo faax. <laughs> dama d' ah, ah. accord. moo tuddoon cosaan séeréer. ah ok. moo ko juddlu dafa am lu tax ma changé. tur bi cosaan séeréer bi waaw tuddee ko vidéo faax. loolu mbiru biir la. waaw. Euh, ma tuddee ko vidéo bu faax ndax moom. yalla boole na ma moom te xam naa ni incha allah yàlla dina ko defal sutura fa la daanoo moom si man ci yow waaw mi ngi daanoo Touba uh-huh. donc euh, mu nekk mal bu nga xam si aussi ab indi na apport bu bari ci sama bergerie ok comme volcan tamit indi na apport bu bari sama bergerie ok comme papis indi na apport bu bari sama comme petit Birahim indi na apport bu bari sama sama bergerie macha allah comme ñoom tamit seen i doom indi apport bay ci sama bergerie ah mais sëñ Fallou li nga ci sang yu doy waar waaw yoo xam ne si liggéey naa ko tëgg naa ko ba fi mu toll nii nag ngay dégg xool leneen looy liggéeyaat looy dolli ok ndax élevage bi dafa laaj xam-xam dafa laaj tactique dafa laaj calcul dafa laaj teey dafa laaj jàngat dafa laaj dafa laajul ma riirul dafa laajul di topp rek nit ki di top di waxkat yi wala ngay top xar wala ngay topp riir mhm. laajul da fay xam xar bi nga yor lan la soxla pour développer wu bu fekkee xar bi mhm. dafa mais exemple mu la ko doon jox ci nutrition nit ki dafa soxla euh, euh, protéine pour màgg mhm. pour pour pour rëy soxla calcium pour defar ay yaxam yow nga koy nourrir calcium kase ah. du rëy Uh-huh. mën na dem sax ba indi calcium boobu. Mm-hmm. ëpp ci moom. Mm-hmm. ba mu indi ay dégâts ci ay yaxam. waaw mais nag loolu loolu. comme tamit nit ki soxla calcium pour dëgëral tànkam soxlaatul protéine nga koy jox protéine bu bari mën na dem a dem ba protéine bi. ëpp ci moom mu nekk lu xam si ak wéradi la koy jural. loolu moo nekk ci càmm gi brebis bi da nga koy xool xam lan mooy fooram lan la am lan la manqué. lan la bëgg koo dolli pour mu am pour mu jur ku ko man parce que xar yi fi nekk nii yëpp kuñ ci croisé yaay man sa ndey waay kuñ ci croisé man sa ndey déjà li tax nga mën a man sa ndey li koy waral mooy dañoo seet li nga xam ne si moom mooy li sa manquement bi sa yaay am ñu jëw dolli ko dolli ko ci yow macha allah moo tax ñu jëli volcan uh-huh. pour dolli doole bi ok tey fii doole da ngay jàpp ne man samay xar yëpp dañu rëy te fekk rëy moo gën a yombal liggéey. ci waaw ci ci critère euh, bet bi. waaw moo gën a yomb. ay yax développé leen moo gën a jafe. moo gën a jafe. kay ka masse volumineuse masse volumineuse mooy yàpp. Uh-huh. yàpp moo gën a neex a def ci xar bi que. nga yokk ay yaxam macération kon macération boo ko tëggee ba mu doy. Mm-hmm. boo fexe te nag boo fa nekkee bul bul nekk foofu di tëgg. di tëggaat yow lu lay may doole da ngay fekk lu ñu tëgg ci doole ba noppi ah. nga ñëw dugal ko benn yoon rek boo ci laalee rek waaw parce que doole bu bari day daaj waaw mais boo ko si laalee benn yoon da ngay indiwaat mensuration ah. en tout cas li nga wax nii ah. gars yu bëri xam naa ne dañ ko apprécier parce que li nga wax dafa dafa dafa dafa neex dégg mhm. xam nga wax bu neexee bu dëggoo rek day neexee dégg mhm. neex naa dégg comprendre naa macha allah ma ma ma kon may comprendre li nga liggéey ba tey

ñu tëj ak ak ak champion bi joxante rendez-vous ñeent maal ñu fi nekk. fii li fi nekk ci ay maal ëpp na quatre. ëpp na quatre de ah. waaw te ñëpp dañuy liggéey ndax man dama am référence. sama référence mooy sang bu nekk dama koy soxla. ok même bu ma ko soxlaa pour benn femelle ñaari femelle. dama koy soxla dama koy soxla. parce que bu ma rapp boo appareillé li ma soxla rek. Uh-huh. dafay dafay dafa may jariñ loo xam ne si moom moo gënoon maal bi génn. ok parce que champion dañ koy juddlu. pour nga jënd ko day metti champion. pour jënd ko. day metti day metti juddu ko moo gën a sedd. surtout maa nit ku defar champion ba mu taxaw xam nañ fi daj. nga bëgg ko jël ci loxoom. Mm, day metti day metti tey jii maa ngi fekk waaju baax. Uh-huh. waaw ay doomu ma ngi doomu waaju baax mi ngi fii tëb waaju baax di tëb. ok waaju baax moo nekk ne waaw xam nga loolu. loolu jaaxal na la. Ah. doomam mi ngi tëb moom muy tëb. maa ngi fekk Bill Gates Bill Gates moo ne mais Bill Gates mii. waaw pourquoi ñëwagul foire moom it. moom it génnagul foire. te man moo ñuy xool ko ni dama yéemu. waaw pourquoi génnagul. lu tax génnagul moom dafa nanguta taxaw ci machine. ah d' accord loolu mooy kii yam. te aussi tamit Bill Gates dafa nekk sang bu nga xam ne si du sang bu ñuy yàkkamti. ok mu ngi am ñaata at. février lay am 3 ans. macha allah gisee ni nga yaakaar ni mag la. te fekk xale bu ndaw la. ok du sang bu ñuy yàkkamti sangu zalatan bi ñoom seen màgg dafa yéex. macha allah te seen wér-gu-yaram dafa yaatu macha allah.

waaw ah. da nga gis mensuration yu musul gis. macha allah man maa la ko wax. gis naa loolu donc. moom euh, moom fii la juddoo wala da nga ko jënd dama ko jënd. da am ay 2 mois euh, jours. laa ko jënd ma gisee woon. Euh, bi mu ñëwee ci foiru Tëngéej bi laa ko gis mu ñëw ci foire ànd ak yaayam par contre fii la yaay ji tëboo sama wet ci boobu Icham jaaña ko yoroon. ok yaay ji yàgg naa bëgg doomam bu jigéen aw ko woon parce que Icham. xam naa ko moom Miss Mbacke ñoo ah, bokk ndey ak baay Miss Mbacke maa ko moomoon ah. aussi bi ma juree ak euh, madame Cissé bi ma leen gisee euh, ñu waxtaan ci euh, maag latir ñu jubóo si ma bàyyi ko fa ba mu fer ci trois mois ci laa ko jëli mais bi mu fi dikkee jur na fi ay doom yu góor ak doom yu jigéen macha allah téye naa fi cinq doomam yu jigéen moom Bill Gates yoo xam ne si ci production laa leen yóbbu téye naa fi aussi ñaari doomam yu góor yoo xam ne si ñu ngi jëm si. production. a fait ba tey moom tamit maa ngi ko téye. parce que am na ay doom yu génn. am na doom yu génn yu ma jaay. te mhm. aussi ba tey maa ngi ko téye moom. Mhm. di xaar lu ma ciy defaat. macha ak kan. maa ngi fi ak Watara. Watara Watara nekk doomu Bidiw. Mhm. yaayam nekk bébé Bousso. ok bébé Bousso nekk doomu Penda Ngane ak Petit Birahim. ok moom tamit fii la juddoo. fii la juddoo. nekk héritier Bidiw nekk. sang boo xam ne si dafa màcc jëm ci Birahim bi. Mhm. parce que biddiw aussi dafa am loolu ci ci Birahim bi. Mhm. ba pare wëlbatiku watara tamit constant waa ci Birahim bi ba pare am ci euh, penn ngaan bi. Mhm. ba pare di ko transféré ci ay doomam te pour te dire vrai watara moo dàq jur mensuration biddiw faax papa. ok ok. amaat fi benn maal bu nga xam ne si doomu biddiwul ba tey. siif la mais ba tey extanté la ak watara. ñoo bokk maam. moo nekk ci suuf moo nekk suuf mooy jeune mâle boobu. waaw c'est un jeune mâle maa ko dénkaane woon jëli naa ko. tëba mi benn phénomène la fi tëbagun mais maa ngi ci dama ciy liggéey moom tamit. ok benn côté bi ma ciy liggéey mooy moo watara ñoo bokk baay. mais seen yaay yi ba tey bokkul. seen yaay kii yaayam dafa laal ci girafe girafe dem ci miñaan bi. ok girafe dem ci masut bi ba tey laalaat petit Ibrahim bi. ba pare laal ci papis bi kii yaayam laalu ci papis dara. d'accord macha allah <laughs> est-ce que ñoo bokk baay mais bokkuñu yaay. kii mm-hmm. yaayam fixe papis la ki ci suuf. Mm-hmm. yaayam ñaari doomu papis lañ jël boole ko mu yaayam judd. ok yaayam moo juróon cant cant bi nekkoon ci Mouhamed Mbaye. Mm-hmm. ba pare moom moo topp ci cant. nekk jeune mâle boo xam ne si bu am yaakaar mën a jur doom yu doy waar fi ma ko fi ma ko dénkaane woon. macha allah muy xar boo xam ne dinaa ci. téyewaat progéniteur bi. téyewaat ci ay a mu dem. ba tey tamit napp mi ngi fi muy doomu vidéo faax. doomu doomu doomu baax. fan. moo nekk jeune mâle bu ndaw bi six mois. ok ma tel ko jox chance à l'âge de six mois. Hmm. même pas six mois bi mat jox naa parce que li tax ma jox ko xam xam lu man Faidou, wala di magistrat ak ah ok. je peux dire que Faidou c'est le mal qui a les parents les plus titrés C'est yaayam da jël Adam bayam jël sal Adam Mamam jël sal Adam jël sal Adam. muy kan ak jël meilleure 2018. Sall Adam mhm. baayam di magistrat jël mhm. meilleur femelle meilleur mâle 2018 uh-huh. maamu bàyyi magistrat di Cheikh Diop jël jël jël Sall Adam yaayi magistrat di Aïssa jël Sall Adam waaw oh. ñu jël ko moom mhm. moom moo tax ma tudd ko buur bu buur di bummi buur di bummi waaw nga ko tuddee moom laa ko tuddee buur bummi ok jeune mâle boobu bi ma ko jëndee buur bummi laa ko tuddee macha allah parce que buur la bummi la

ci élevage aussi tamit may tëjee benn affaire bu ndaw. waaw ah. nañu xam ne élevage dugalante la. changement de dret la. Ah. foog nga gis ne lii moo la arrangé nga jëli ko dugal ko sa sa gétt pour mën a def exploit. waay kenn du def recrutement aveugle kenn du def recrutement boo xam si daf ma neex yaa ma neex la. Mm-hmm. parce que tey buur bu mi bu ma ko jëlee dugal ko sang boobu laalaguma ko sangu Saalum Saalum mosul dugg ci kër gi. waaw moom laa doon bëgg laaj nag. muy benn waaw sanwu yaayu buur bu mi doomu faydu la mais ak kan latifa latifa di doomu forman sanwu sibéeru boobu tamit musul dugg ci kër gi. macha allah maja bi musul dugg ci kër gi te sibéeru ku ko xam-xam ko ci rëy. Mhm. kon rëy bi ma amoon too du du du ma ko xañ. li ma doon sàcc noonu rëy bi. macha allah du ma ko xañ. est bi nekk ci Saalum. ak njool bi ak yax bi nekk Saalum dem du ma ko xaj mensuration moom macha allah am na fi kon nag yaakaar nañu bu fi <laughs> dañuy tëjee champion bi moom mooy kan mooy ñu préparé mois prochain. ki jël euh, champion maam Kumba champion euh, euh, en tête. en tête mooy kan. Miss Kumba. mais est-ce que xam nga ni boo yóbbuwaatoon ñi mu dendal dañ. <laughs> mënoon naa <laughs> waaw waaw uh-huh. da ngay da ngay def ndànk-ndànk. macha allah da ngay génne par benn benn. waaw

loo xam ne si euh, kii ñu tëj ko. tëj ko que añel rafet. oui macha allah macha allah léegi joxaat ñu numéro adresse bi bu ko defee. voilà 77. 847. 04 57 mooy sama numéro. 77. 847 04 57 mooy numéro bi mooy whatsapp bi aussi. Uh-huh. fii moom neex na ñëw mooy cité Satra. boo wàccee Kër Massar rek ci pont bi. Uh-huh. foo taxaw oto boo jël wala boo koo laaj na ko cité Sotrac mhm. mu teg la ci yoon boo dikkee arrêt daara ji rek ngay wax ok macha allah boo dikkee ci arrêt daara yi foo ne kër sëñ Moustapha Gueye ñu ko dëgg la euh, yi ku bëgg fi melu xeexu kaay yow seeti sëñ Moustapha Gueye macha mooy napp kii mooy napp doomu champion bi la doomu Miss Kumba la ak waaju baax waaw macha allah moom ñu ngi koy yaakaar bu baax baax baax baax euh, fekkee ma la juddu le 17 jour bi Napoléon daanoo ci la moo tax mu tuddee ko napp quoi eh, am nañ yaakaar ci moom macha allah jeune mâle bu extra jox teel naa ko jox mu tëb nag euh, boole naa ko ay jànq dans la dans le présenté jànq yi ma ko booleel nag macha allah waaw mi ngi ci si juste sept mois waaw. Euh, kii doomu doomu doomu doomu Bill Gates la yaayam doomu biddiw moom tamit ci ci jabaru napp yi laa laa ko boole macha allah. Euh, mu nekk añel bu ndaw euh, mu ngi doog a tëbu rek macha allah hmm, voilà. kii rakk yàlla euh, la meilleure femelle espoir Fila ki rakkam la. meilleure Fila ki rakkam la ñoo bokk ndey. après doomu bidéew bu fàqu jur ko ak Miss Mbacke moom tam ñuy xaar mu jëlaat yoonu mag ji quoi allah. kii aussi doomu Bill Gates la yaay ji doomu biddiw la kii yaay moom laa jox Latir Cissé moom moom la fi bàyyi moom tamit ci jabaru nappo yi la bokk moom tamit non moo ci gën xale kii doomu buur Saalum la tamit ci doomu napp ci jabaru nappo yi la bokk euh, moom tamit Euh, mu nekk femelle bu am hauteur macha allah waaw. waaw ah, tëb na tëb ci napp waaw. foofu amul fa foofu li may calculer calculer naa lu lu judd kàkka lay doon <laughs> macha allah. <laughs> xam nga xoola kay xool ma bi ba xoolee. am na yeel. am na longitude los. Ah. te dafa sew. napp dafa dafay cons am yax. am esthétique te da koy yokk du yàq autoram te du yàq LCS am.